2023 bu commune bu kaw Kaolack voté nañ ko ci talaata ji dëppoo nag le 27 décembre 2022 ci mairie bi muy budget boo xam ne ñu ngi ko xayma ci 7 milliards ci sunuy koppar di ak yokk bu mag a mag suñ ko méngaleeg budget bi nga xam ne mooy at mi weesu doonoon ñeenti milliards mbooleem conseillers municipaux yi ñoo ànd ci vote bi. amee budget bi dafay passé à 4 milliards dem 7 milliards et quelque loolu nag lu ñu étudier la ba xam ne lu mën a nekk la. ndax euh, yaakaar gi nga xam ne moom la waa Kaolack waaye am yaakaar ci ñun et que suñ dix mois yi njëkk a def def nañ fi liggéey boo xam ne nii xam nañ ne euh, ñun bu ñu dénkee seen alal danañ ko liggéey. Euh, kii conseil bi dafa am. Euh, différents euh, faction politiques yëpp ñi ngi ci biir waaye ñun ñëpp nañ ko voté à l'unanimité ak débat yu yu riche yu am solo. budget yi nga xam ne mooy at yi weesu pàcc bi nga xam ne moom lañ daan jagleel wàllum fonctionnement moo daan ëpp investissement at mi ñu doon mal nag maire bii di Serigne Mboup dafa jox gëdd bu baax a baax wàllum investissement nga xam ne ci budget bi. téeméer boo jël juróom benn fukk yi lañ ko jagleel. l'investissement moo ëpp mooy 60 pour cent 40 euh, pour cent et l' investissement li ci ëpp mooy dañu fexe ba nga xam ne ni mairie bi day dundalaat li ñuy wax travaux publics pour am ay machine am am ay machine pavage am nga xam ne ni lu mu daan def jaarale ko ci entreprise yi léegi war na koo mën a def moom ci euh, dix fois mën na ko def dix fois et li ci ëpp solo mooy main d'œuvre locale la te dana créer lu mat 1500 emplois loolu lépp nag ak tamit fexe ba euh, dundalaat bu baax euh, dundalaat bu baax euh, jigéen ñi jigéen ñi ci seen i projets yi ñu am bu baax ak ndaw ñeeg defaraat sport bi gën a redina gën a gën a yokk faj mi ak yëpp daal. bien sûr parce que dañu fexe ba nga xam ni budget bi dañ fi fekkoon ci fonctionnement yokkuñ ci dara. au contraire ñun dañoo fexe ba fonctionnement bi wàññi en tout cas ci deux mille vingt deux wa euh, wàññi nañ ci économiser nañ ci cinq cent cinquante millions ci li ñu waroon a fonctionner looloo tax nag bii tamit ñu jàpp ne lañ fonctionné woon daaw tamit dañ koo wàññi euh, euh, bien que 17 adjoints yokku na ci yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy am salaire bu ndaw bariwul mais quand même li ciy des mooy jëm nañ ne ñun Kaolack ci ay anne yi di ñëw danañ mën nañ mën a dem quatre vingt vingt quatre vingt vingt mooy le budget de fonctionnement. 20 pour cent et l' investissement 80 pour cent veut dire que mooy bis bu ñu demee ba àgg 10 milliards wala 11 milliards danañ am 20 80 te mu nekk lu quelque chose lu extraordinaire je pense que loolu musta am ci Sénégal te ci àdduna bi sax bëriwul. am na ay projet yu mag a mag yoo xamante ni fas yéene nañ ko naal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack meeru dëkk bi di Serigne Mboup di ci xaar jàppaleeg état bu Sénégal waaye ci ay lëkkaloo yoo xam ne moom lañu dëppee partenariat public privé. xam ne ni biñ ko calculer léegi rek mën na 300 milliards. mooy yoo xam ne nii moo jëm ci port bi port sec hôpitaux yi tout ça mag yi loolu nag dañ koy jéem a travailler avec l'État pour que def plaidoyer bi ñu war a def pour état bi boole ko ci programme Sénégal émergent xam nga ñoom ñi ngi wax ni ñi ngi tëggaat Sénégal émergent pour 2035 loolu bu ñu ko ci boolee en même temps am na yoo xam ne tamit ñu fexe muy partenariat public privé te ci loolu tamit am nañ ci projet boo xam ne nii bu gën a ambitieux la dañu xool ne Kaolack dafa mën a yokku ñu ngi xool espace boo xam ne nii buñ ko amee bu mën a mat ay mille cinq cent hectares wala deux mille hectares ñu def fa nouvelle ville boo xam ne nii dana war a mën a ci ci pro ci diirub quinze ans lay diire boo xam ne nii investissement bi dana jege six cent dix neuf milliards mais loolu lépp day nekk partenariat public privé avec l'appui de l'État. meerub dëkk bi ñaaxaat na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu sàmmonte ak li nga xam ne moom lañ war a fay ndax ci koppar yooyu moom la ñuy defaat ci dëkk bi. Euh, parce que benn bu ne dañu xool ne Kaolack dëkk commerçant la. dëkku économie la soo jëlee lu jëm ci wàllu euh, marché yi euh, buñ ko buñ leen waxtaanee ak ñoom euh, jàppale leen ba marché yi mën a am yenn cadre de vie am sécurité am nettoiement ñoom ñëpp danañ engagé pour fay li ñu war a fay boo demee ci transport bi dëkku transit la dëkku boo xam ne nii oto yi dañ fi indi lu bari yooyu tamit gis nañ ne xool nañ ko ne mën naa yokk lu bari lu jëm ci ni ñuy wax tom taxe ordre ménager euh, mooy bi nga xam ne nii dañ ko war a collecter te loolu le fait que aujourd'hui ñi góor góorlu pour dëkk bi rafet dëkk bi set loolu lépp nit ñi duñu am problème pour fay ko te ay tarif yu ndaw ndaw lay doon beneen bi ki des mooy lu jëm ci foncier bâti mooy nga xam ne nii moom mooy moom mooy dimbale maire bi pour mu mën a defar lumière yi làmp yi ak lépp ah, tamit mën a def ay assainissement te kenn ku ne xam nga ne am na kër yoo xam ne nii su nawet ñëwee ak seen i fosse danañ ci dépenser du cent 300000 ci benn année rek wala ñu yàqule fa lu ëpp 300000 te mën naa am la ñu waroon a fay ay 25000 la que 30000 wala 50000 bu ñu ko fayee lépp dana baax incha allah budget bi daal lu ñu étudier te xam ne suñ ci engagé woo danañ ko mën a def waaye nag duñ toog di xool dañoo war a jóg taxaw wàcc ci terrain bi expliquer nit ñi nit ñi tamit euh, comprendre ñu bu baax xool ne buñ ko defee fe déwén mën nañ yéeg 10 milliards beneen année ñu dem 15 milliards te bu boobaa Kaolack dana mën a jël préoccupation développement boppam ak lu ko ci état bi jàppale rek dana mën a demal boppam li ëpp solo rek mooy Kaolack waaye ñun ñëpp ñu engagé wu ci collecte des recettes mais pas de pression fiscale fexe ba nga xam ne nii kenn ku ne da nga contribuer lu ndaw ndaw et je pense que bu ñu ko defee ñun ñëpp dañuy defar Kaolack et ci programme bi ñu defoon ñu ñu waxoon jël Kaolack fekk 2030 mu nekk dëkk euh, bu émergent qualité vie bi baax i nekk dëkk bi nga xam ne dañ koy gérer bu baax doxal ci transparence bu baax a ci diirub juróom-ñaari waxtu lañ amal votu budget bi ci ay waxtaan ay débat yu am solo yoo xam ne xam-xam yu kawe kawe yëkkatiku na fa bàyyeekoo ci ay conseillers yu engagé wu ci ginnaaw meex bi di Serigne Mboup ngir suqali dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack.